da nga jox heure yu raté ko ci so ba leg ma ngi fi tok def mu dara dara mu nga ñew ñu ñu répéter lu yaatu ñu am lu bari salam maaleykum salaam yow heure bi laa la wax non non raxas na dama yow raxas dab loolu moo nekk la xanaa yow amoo rak seen kër léegi mënu la respecté heure ah sa yaay bu waxee raxasal boobu nga wax sama rak bi mu raxas ko man dama am luma def ah Sénégal boo ko waxee midi xamal 23h na ñëw lan moo tax loolu gis nga soo ko bëggee def da ngay respecté heure Youssou Ndour mu am yëpp respecté heure moo ko may moom su la waxee 8h xamul ne wala 8h05 déedéet 8h pile da lay fekk foofu su la war a jox oto pour nga ñëw da lay jox oto bu la war a jox vélo mu jox la vélo bu la war a jox moto mu jox la moto léegi nag boo tardé heure bi yaa ko toll man sama heure moom bëgguma ku ko tardé taxawal nii. bon à propos de démb lu ñu doon répété noonu. ndax yow jàpp nga ko bu baax. jàpp ok léegi da nga siy ñëwaat ma xool daal la ah. yaay booy yaay booy yóbbu mama jàngi école mu màgg tekki soo ma baax. sangu dafa ndànk fii doo fi sànkoo xam nga dama bëgg euh, euh, yaay booy yaay booy bu njëkk bi nga koy def des fois da ñëw yaay booy yaay booy yaay booy yaay booy comprendre nga fu ma waxee dama essayé loolu ma xool ba xam temps bi dina yaay booy yaay booy yaay booy sa temps bu bi dellu foofu yaay booy yaay booy yaay booy yaay booy yaay booy yaay booy yaay booy yaay booy yóbbu ma ma jàngi école mu màgg tekki sama ma yaay booy bul ma tiitaan kun ma xale si bu ñu nekk xale suñu màggee ñoom war nañu mën a teg loolu baax na loolu baax na parce que fi mu ko teg baax na mais yaay booy yaay booy bi rek laa bëgg nga koy laaj des eh, eh, eh, man la li ngeen di def ñu baaxul de. ah lan la bàyyi leen di yàq way way daa am temps maa ngi ci biir waaye li may dégg ngeen di ko yuuxu du du du noonu la ñuy way non frère xam nga way dëgg li nga wax dëgg dafa am temps quoi mais xam nga ak man ak moom duo la boo xamante ne moom dafay woy man damay rap. Hmm. kon temps yi ñaari temps yi bokkul benn temps bi temps wu rap la benn temps bi temps bu woy la. waaye nag ci biir loolu. dama bëgg rek euh, muy nekk loo xam ne temps la ndax woy daa am do ré mi fa sol la si do. dégg euh, euh, géwél bi ñëw ni ko mbëpp mbaar ak njolli. fi ma dégg moo yuuxoo yaay booy yaay booy xam nga man jamono ya may way naan wantara mbera bam bam bam bam bam bam watira wantara mbera xam nga loolu dama koo génne mu wër Sénégal di wax moo tax li ngeen di wax damay bëgg mu mu tegu ci temps yow it fi nga rawee man jaar naa ci rab ndax da bind naa ay texte ba ni euh, tekk ak tey moo fi indi xibaar yi doy waar yéem di yeete xel mooy tànn xib xob du ab weer bañ koy jiróo su àdduna doon ñaar man bàyyi bàyyi cofta maa ci soob benn koy toroxal bàyyi ko eh, yow yow tekk ak tey moo fi yi doy waar yéem di yeete xel mooy tànn xib xob du ab weer bañ koy jiróo rawat nañu koy pàccoo su àdduna doon ñaar man bàyyi cofta maa ci soob benn bi safara du gel bañ koy toroxal xam nga loolu non dafa eh, gaaw waaw man dama bëgg nga ñëw bokk ci groupe bi ngay ngay ngay rabandu ak ñun. déet booy mën naa leen a jox joxi texte waaye nag ah, man paa buy rab soo koo gis fi mu toll nii dégg nga ni ma la ko waxee. Ah, da ngay jël texte bii ma jox la. man la capitaine Nourou Kaani xeeñ samay kaddu dafa xóot comme ten du ma nitu neen bu leen ma en loolu freestyle la rek bu ndaw. doom nag. fii nga ko jàpp baax na. waaw ma bëgg nga góorgóorlu. non wax naa ko xam naa ni boobu boobu bu ngeen nii ngeen ko defee nii. ndax may daal di gënal. waaw waaw ah na na nay waaye maa ngi ci biir dégg ngeen. waaw waay man ko teg ci ah? nag xam nga lu des si affaire mooy kaay dama lay wax lu des si affaire mooy euh, clip son bi moo des bi nag comme affaire bi dafay am sensation. parce que sensation boo ko déggee toogal li ma wax la mooy nit ki da nga koy jege dégg soo ko jegee infection day am parce que bëggante mënul am si clip bi tànk yéen ñaar defu leen ko ah léegi nag da ngay wëy toogal bu baax toogal bu baax waaw léegi da ngay wëy may déglu quoi comprendre wayal wayal wayal wayal yaay booy yaay booy eh. yóbbu ma lii mooy sensation da nga xamul sensation sensation foog ñu raay la pour son bi mën a baax wéyal wéyal wéyal yaay booy yaay booy yóbbu ma ma jàngi école lan la ma nga tekki di nga tekki di nga tekki ah eh, ñuqil yow ya di xaj yow ya bon yaay band yaay sese sa profil waaye lii lan la clip bi lañuy essayer eh, lañuy nan lip lañuy répéter clip clip ba ci lambatu waate jël loxo dugal ci ween nan clip non non clip bi mo laaj ci sensation yow xam nga lan sa yow la ilaha illallah ay man man ma waru lan la da ngay répété war répété wu. Eh, eh, eh, lu xew yéen mbaa jàmm. kii mooy kii mooy yàgg bëgg a yàq répété bi. xam nga gis nga gis nu mu tuddati jay na ba jay na ba nit da ngay dal di nga problème bi mooy. nii danoo nekk ci répétition bu am solo bul yàq lii. yow déggoo xale bi lii muy woy naan yaay booy yaay booy yow sax mën ngaa doon yaay bi ci clip bi. waaw waaw ah? loolu laa bëgg sax. bii génn naa léegi banu banu banu way ma dégg ndax li ma dégg xale bi yuuxu ko jamono ji ñii wa war a dem seen petit gàll ji as bii te mu kii tolloo nan tolloo goo xamante ni fi mu toll ni fu nu kuubalee den damay jox jamonoy euh, ak Fatou Mbaye jali bu ñuul ak Fatou Mbaye eh, xam nga lu mu ko doon def da ko doon làmbat yoo xanaa kon bi nga duggee oh. kii loxo loxo bi ci biir ngeen ko ne gi ko fekk eh, yow da fekkee loolu da gis loolu eh, mandaari xanaa da ngaa mujjee changé. waaw xanaa changé taxi. déedéet yaay booy ci yaay booy bi ci tekki bi la nekk. yaay booy ba ciy ween. <laughs> Eh, eh mandaari bu dee yaa def lii li nga def baaxut de. non non non non man defuma la laajal xale bi dafa si ban temps nga nekkoon ci yaay booy bi ci tekki bi. da nga cee boole di ma raay. Eh. wax naa ko naa dàq naa eh, dàq naa. dëgg dëgg dëgg. kii xale bi daa yow xam nga ni fi mu doon nii kër gi ñaari koso amu fi benn koso moo am ci kër gi. muy yow moom jaaku ah! ju am ci kër gi. yow nii nga def noo ko mën yow nu mu la doon làmbatoo. muy lam sama yaram bi yëpp naa ko boole. yow yow <laughs> eh, xale bi kii dàqoo leen kii dàq naa ko. yow yow sa empreinte yaa ngi nii ci ci ci ci tundu xale. man sama empreinte say empreinte da nga nii defal nii lii mooy empreinte. eh ndoxuñu. mooy sax doomu li nga wax nii defal nii. xamul dara sax kii mënul wëy. yow kii mënul wëy. kuy wër espèce ba sa coow ba yokku mu tuuti. Eh, yow gis nga am na loo xamante ni war nga koo mooy waaye yéen lii la la ni fii ngeen di jël dajale nit ñi bu nu waxee ngeen ni casting kalaa ngeen ne casting te te te tingu ko ba pare ah du du nii la ñuy wanee nit du nii la ñuy jàngalee nit sensation ak. bii du ma sa morom nag yëfi doome xaraam yi noo ko yow kii nga xamante ni tolloogul sax ci âge de la leer na ma ni 10 ans tungu genre xeetu tungu na ñi nga xamante ni ay bambara lañ te doo ma jugal ci coowu bambara doomaraam yow kii la. Pablo